Moutar Modou Kontantal Paal Mor Paal. tamit jàppale ki nga xam ne moom mooy ñooy def lool di wane ne beneen xar kanam Siggi jot na di di doxee. waaw comme ni nga ko waxee rek ñëpp xamante ni le mouvement Siggi jot na li ko ñor mooy euh, yokkute askanu Thiès donc euh, surtout nag sport bi yàgg nañ si yëngatu képp koo xamante ni rek am na.

ndam la sunu fierté la té ñun liñu war rek moy japp si ba tay liñu organiser organisé moom réussite parce que ku gis tay ñi ñëw tay ci euh, journée bi yëpp journée journée de compétition bi xam ni tey tout tout le Sénégal est présent gis nañ fi waa Kaolack gis nañ fi waa Fatick gis nañ fi waa Dakar waa Mbour donc je pense que li tey lii tey dama waa Thiès la moo tax tey may ñaan waa Thiès Thiès waay euh, ñu japp ci jàppale sport boule parce que sport boule da di lo xamanteni day bolé day bolé ay mbokk parce que lo xamanteni ni ñëpp fii daje ñuy waxtaan di kafré te lolu je pense que dañ ni tay lu am solo la mais aussi taxawu leen ndax ñu mën a am ay champion parce que ay nit aussi euh, bu ñu amee luy gëm ba ba si am ay résultats parce que tey gis nañ ni le Sénégal am na un double champion bi nga xamante ni tey dem na si réew yu mag yi ba nekk fa champion donc nag loolu dañoo war a xoolaat suñu infrastructure yi ñu defal leen ay infrastructure yoo xamante ni ñoom dina tax ñu mën a nekk ay professionnel parce que nit aussi pour nga nekk ay professionnel il faut que nga jox ay jumtuwaay il nga jox ko ay moyens te loolu aussi ñi si jiitu mooy suñu autorité locale yi ñi nga xamante ni ñoo gérer suñu communes yi nañu xam ni que sport bul dafa bokk ci sport donc war nañoo créer ay infrastructure yoo xamante ni ñoom di di dinañ si mën di yëngatu ndaxte ñu mën a ñu mën a aspirer à être